di seetaan li nga xamante ne moom moo topp Top Cas 100% divertissement ñu waxtaan ak yéen l' actualité du pays people politique waaye itam dinañ wax li nga xamante ne rek moo xew ci réew mi rawatina naka ni ëllëg li nga xamante ne rek mooy prestation de serment bi nga xamante ne rek kii di euh, Bassirou Diomaye Faye fas yéene na ko euh, amal mu doon loo xamante ne rek moom moo daal di succédé ki nga xam ne mooy njiitu réew mi euh, Macky Sall gannaaw bu defee fukki at ak ñaar ci bopp nguuru Sénégal naka ni nag mu fas yéene jeexal mu nekk loo xamante ne alors askanu Sénégal yëpp dañ koy rafetlu naam këréel ak xët-xët ñàkkut ci li nga xamante ne mooy bile gouvernement waaye li ñuy wax saa su nekk rek nguuru suñu borom rek dul a ngi laajte ndaxte ah, bu nekkee premier ministre moom yaakaar naa na wàcc na mm. te moo ko war a sax doon nag am ñu naan nañ ko def vice président nga xam ne Euh, premier ministre dañ koy éliminé ba tey muy vice président ak premier ministre rek mm. lépp loo xam ne lu ci war a nekk rek mm-hmm. yaakaar naa dañ koy def ndax xam naa ne jomaay moom kenn du topp ci ginnaawam mm-hmm. ku dul Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko ginnaaw yàlla suñu borom moo ko def tey li mu doon mm-hmm. ndax yàlla suñu borom du may kenn mais amee lépp lu muy def rek am na ku ñu koy jaareel ci loxo doomu aadama kon nag ki nga xam ne ne yaakaar naa ne ci lii lii mu nekk nii tey mooy li may wax bu Ousmane Sonko nekkee kaso ku mu yebal rek bu yëkkati woon tey Kleenex bii ne kii laa jiital kon yaakaar naa ne tey jii Kleenex bi yaakaar naa ne mooy jiite Sénégal mhm. waaye comme que nag ki nga xam ne mooy jomaay mooy tànneefam mooy mooy le porteur du projet ba yegg si fii tey mhm. yaakaar naa ne lu muy def mooy ñëpp lu ñu ci yaakaar rek bu dee vice président la Ousmane Sonko lañ ko xalaatee bu dee premier ministre tamit mhm. loolu lañ ko xalaatee ñu daal di focus takk seen ñi ñu ngi naan diggante Ousmane Sonko ak Mimi Touré waaw Mimi Touré ndax Mimi Touré mosoon na nekk premier ministre bu Macky Sall waaw ba a ba tey ma ne ko ba tey tamit am na ñu naan gisuñu Ousmane Sonko am poste yow ndax Ousmane ko war na mën a am poste ci nguur gi. ah lu tax Ousmane su ma su ma doon. du liggéey la woote bu fekkee ne ñoom pàccoo réew mi taxu leen a jóg. maanaam dox lu baax ak liggéey réew mi moo leen tax a jóg. Mhm. Ousmane Sonko comme yàlla def na euh, fal nañ jomaay ci ci barkeem. Mhm. yàlla jaar na ko ci moom. su ma doon moom dafa war a dem toog biroom jàpp njàmburam mhm. yor kurusam continuer liggéeyam la doon liggéey yow nag yow nag maanaam yow nag Bada dama yaakaar ne yow wéeru kan Ousmane Sonko waaw yow Bada dama yaakaar a ah. ki nga xam ne moo téye projet bi ba yegg fii nga ne Ousmane Sonko da nga naan na dem toog ñoo ko bokk moo euh, euh, ko téye ba yegg fii bu Pastef Jomaay la Ousmane Sonko Jomaay mhm. ñoom ñoo fondé lii di Pastef bi ñu ko fondee dem jëli kii di Ousmane Sonko woo ko mu ñëw pour mu jiital leen parti bi. Mhm. ba tey yëf demee nii mu demee. Mhm. léegi Ousmane Sonko da dem téye kurus dama ne bu fekkee ne pàccoo taxu leen a jug. waaw lan mooy pàccoo gouver damay laaj gouvernement Macky Sall ñaata nit ñoo fa nekkoon di liggéey. foo nga may mu wax. waaw wax mooy problème bi. waaw li ñu doon bañ ci réew mooy. Mhm. Ablaye Wade jël réew mi jox ko doomam wala Macky Sall jël réew mi jox ko doomam wala Marème Faye Sall fay fal Mansour Faye mhm. loolu kaas ko fi ba tàyyi mooy kumba ndey kumba amul ndey waaw dama dama lay dama lay a mhm. a ko booy bi diriger cest comme moom lu baax la yow nag gis nga gis nga gis nga sëñ ba gis nga sëñ ba mais dafa amul a bon dama lay laaj a bon ci àdduna kuy di wax nit ak di difformer nit ah. yow noonu nga mel waaye neexee na yor na yor ñeenti jabaar loo mooy ñaari kuy duñ bokk mën a mbal ko ñoom ñoo bokk liggéey bi dañuy bokk liggéey Sénégal mu nekk projet waaw ñaari xalif généraux mënul am benn xalif généraux a même diine islam bi moo gën a bon ku ñuy fay war ku ñuy yebal di la ngay wax dama ne pourtant man damay joxe sama idée dong de bu fekkee ne jomaay bi may déggal lool lool lii la Ousmane Sonko war a def na dem toog mhm. bàyyi booy may leen saas na bàyyi booy may leen saas nangu ñu bañ a bi nga nekk da a nekk premier. waaw dama lay laaj dama lay laaj Aïssatou. Uh-huh. dama lay laaj ñoom ñiy xeex projet bi ba yegg si fii. Mm-hmm. dama la koy laaj mm-hmm. Ousmane Sonko dem ba ci biir ñu génne Ousmane Sonko bu ci génnoon loxoom sax. Mm-hmm. ne domaay bu ma def dara ñoo gi nga gis leen ñoom seen biir ñi nga xam ne ñoo taxaw opposition yu bees yi naan Ousmane Sonko day roccee koo mhm. jomaay war na kook nangama nang Ousmane Sonko mhm. ak jomaay ñoo dañoo mel na ñaar ñu bokk nday ak baay mhm. réew mi nañu bàyyi fumiste nañu bàyyi seytaane nañu bàyyi nga xam ne ku log nag doo wax jéem a féewaloo ah. déggoo li ma la wax fii amul dara ku féewaloo ku log doo wax jii ñoom dañoo bokk lan lañ bëgg liggéeyal Sénégal lan lañu bëgg siggil Sénégal lan lañ bëgg muy xeex nooteel bi nga xam ne moo am ci réew mi tey jii bu yàlla jëlee jomaay def ko li nga xam ne mooy président mhm. Ousmane Sonko war a nekk ci ginnaawam nekk premier ministre wala wala vice président bu dee loolu ma war a am wala même bu nekkul sa premier ministre wala mu nekk vice président na bokk ci gouvernement bi ndax Ousmane Sonko boo ko xoolee xam na mhm. du soxorul i ñaanul bokkul te ku nga xam ne dañ koy nekk ñaar Ousmane mooy mooy mooy diriger waaw mooy gouverner ci ginnaawam lay topp ah, certes que Ousmane euh, mi kenn xamagul kan mooy diriger exact parce que waaw euh, Diomaye euh, ñëpp xam na ne am na lu mu séq ak Ousmane Sonko mais bul fàttali tamit ñu bari ñu ngi naan. Mhm. Diomaye am na lu mu séq ak Macky Sall est-ce que teguñu ay diir. sérieux Macky Sall mën naa continuer di diriger réew mi soxna si. ah bon waaw ah, Macky Sall noonu la séq ak révélation non moo tax man la ñaari kuy duñ bokk man a réew mi fi mu toll mën na koo xam kañ lay dem fekk dawluñ deux mois. mais deux mois sax taxagul réew mi dem. man daal xam naa ne daal bëggoon. Mm. tey jii jomaay jël nguur gi ñu taxaw fa ba tey di continuer di xeex ak xuloo di saagante duñu dugg pale. Mm-hmm. taxaw fi di def yi fu xale yi fi manqué naan Macky Sall génnal ñu dugg nangama nangam mais taxaw bi nga xam ne pale moom kenn fay nekk muy jomaay mm-hmm. mooy fanaan pale muy jomaay kase waaw kese dama yaakaar ne ne gisee bi ñu gisante gisee bi ñu gisante ak Macky Sall ko fa bàyyi moom day ñibbi même garde yi duñ duñ duñ ko ko nangul parce que garde yi moom sénégalais yëpp ñi nga xam ne garde yi ñun ñoo leen fay ñun sénégalais yi kenn nañu war a garde muy jomaay xam nga jomaay lan lay wax kii lan lay wax nii li nga xam ne ne mooy sëñ Bada mooy ay xalaatam lay wax mhm. mais Ousmane Sonko ak jomaay gisuma dara mhm. lu leen di ci àdduna gisuma dara lan mooy tere projet bii nga xam ne ne mooy sukkali Sénégal projet bii nga xam ne moom lañ bëgg mhm. ba taxawal ko mu nekk projet bu am solo boo xam ne dañ koo wax ba sénégalais yëpp bëgg ko wax ko ba sénégalais yëpp gëm leen ba topp leen ñi nga xam ne ñoo fi nekk depuis 1960 ba tey benn système bi nga xam ne dóoruñu fayuñu atteewuñu xeex bokkuñu benn rang te rang buñ dugg mu dagg. léegi nañu bàyyi waxu yàq. nañu bàyyi waxu jaxase ñëpp xam na ne par exemple waykat. Mhm. waykat bu dee way. Mhm. waaw dafay am ménageur non mhm. am bindkat. waaw waaw léegi ki nga xam ne moom moo bind projet bi. kan lay jox buy way jotee kan mooy taxaw way. ku dul waykat bi léegi pourquoi yéen Ousmane Sonko mënul dem toogi comme li ma ko wax kon ne liggéeyam comme moom Euh, ci administration la nekk mais impôt domaine nan ko delloo impôt. Ousmane Sonko bàyyi na impôt domaine bu yàgg. mais bàyyi mais nan ko delloo fonction comme ni delloo capitaine Touré kenn ku ne ku ñu dàqoon ñu delloo ko yóbbu ko impôt nan ko jox pourquoi pas du ngeen wax loolu pourquoi pas mënu leen wax ne Ousmane Sonko jox ko impôt nekk doon impôt doon liggéey uh-huh. du impôt loolu moo nekkoon métier mais nan ko delloo impôt muy liggéey bàyyi jomaay muy liggéey parce que jomaay waaw Diomaye di góor yàlla sos Pastef. Mhm. man fom du ci dara Ousmane Sonko sosul Pastef moom moo ko sos. waaw du ci dara mais ñoom la c'est entre eux. Ah, mais ñoom la ñaari kuy. mënuñoo bokk mën a nit sos dara te fekk keneen ñëw fa ëpp la li nga xam ne mooy expérience. léegi yow bara bu ñu toogee ba mercredi incha ñu ne euh, euh, premier ministre Sénégal nommé nañ ko Ousmane Sonko wala ñu ne vice président nommé nañ ko Ousmane Sonko. boo yaa awma ci yaakaar ba jour rek jàmm incha ñu loolu yow gisoo ko foofu. gisuma ko ñaari poste yëpp te lii ma la wax nii nan lay demee parce que xam naa Ousmane Sonko. bañkat la. Hmm. Hmm. Hmm. du bëgg daal selon toi. non du question bëgg mais lii yoon lay def yoon mooy na dem liggéey kon ne liggéeyam na delloo impôt domaine. Diomaye diriger réew mi nekk président. de tous les Sénégalais tamit wala mu nekk ministre conseil. ba tey day conseil même fu mu di nekk tamit day conseil. parce que am na ci grande salam mais daal pas de poste ci yow. bu ko defee rek bu ko defee rek dañuy séddoo la damaa yaakaar ne ah, la mais bu jëlee poste rek day mel ni pàccoo la léegi damay laaj kon membre Pastef ñi nga xam ne ñoo xeex rayante ba yegg si fii am kenn amu ci droit am poste déggoo li ma la li jomaay woote ci ah, réew mi déggoo li ma la kenn am jomaay dafa woote ñi taxaw ànd Pastef ne ba yegg si fii tey di xeex li nga xam ne projet bi amuñ droit am ci poste jomaay jëlee lépp lu yàqoon ci réew mi mhm. yaa may dégg waaw indi lu normal lu bees tàq lu waaw léegi lu normal moom place bu ne dañuy xool kenn ne ñoo porté projet bi ba yegg fii mhm. ñu dugg ci kaso ñu teg leen ci mhm. duma leen ci mhm. lu na ñu def leen ko bañ yegg si fii mhm. Ousmane Sonko jiital ki nga xam ne mooy jomaay bañ yegg si fii ñu ne Ousmane Sonko da dem impôt domaine kii croiser croiser les bras yow xam nga la ngay wax ay waxu koo xam ne yow dañ laa yebal dama yaakaar ne dañ laa dañ laa yebal moo tax nga ñëw toog di wax déedéet bale dañ ko yebal am na dikk bi ñu la yebalee da nga ñëw toog di wax lu la neex dañ xaarani rek Ousmane Sonko ban fonction la war a am au sein du gouvernement ko de jàppoo boo ko amee itam lan ngay jàpp ni pàccoo la damay jàpp ne pàccoo la pàccoo teel na de lu leer laa la wax. waaw hmm, ah, bu leen neexee waaw bu leen neexee sax nañ pàccoo amagoo 15 jours ngay pàccoo waaw déggoo li ma la wax xolal bu ko mhm. ba mu neex pàccoo ko ba mu saf te liggéey Sénégal siggil Sénégal ñu avancé Sénégal Ousmane Sonko ak jomaay nee na bu ñu falee Ousmane Sonko pàccaalu nañ ko pàccoo ba mu neex ndax mu ñu fi pàccoo ba pàcc pàccoo fi 1960 mhm. ba tey sàcc yi fi nekk mhm. kere mi kere réew mi tëbb milliards yi tëbb ay millions gas seen kër yeeg dem ci banque yu mag yi denc ko fa yooyu sàcc yu mag yi xam nga lan moo am solo mooy nañu liggéey Ousmane Sonko ànd ak Jomaay Fay ànd ak waa Pastef ak képp ku loxom set mhm. ñu wuy leen ñu toog liggéey jàpp li nga xam ne mooy sàcc yi mhm. ne leen bul yóbbu teg ko fa mhm. teg ko fi ñi nga xam ne dañoo sàcc alalu réew mi nañ leen teg fii ñoom ñëpp audité leen rocc xaalis bi ñu yor sant ñu kenn muy tëj mm-hmm. waaye nañ leen jéggal te yàlla tax lépp lu ñu yor nañ ko xëcc ba mu set mm-hmm. ndax buñ fi nekkee di tëj ak tijji yaakaar naa ngóor gu ñëw mm-hmm. ay kee tëj kee tijji kee tëj kee yaakaar naa ne Sénégal dootul am liggéey dootul dootul dootul avancé te xam nga lan moo am importance képp koo xam ne lu fa waay sàcc ñu ne la indil nga ñëw teg ñu liggéey suqali Sénégal avancé man loolu laa gëm ay Ousmane Ousmane Sonko ak Diomaye nañ pàccoo bu leen neex sax nañ pàccoo réew en tout cas ah en tout cas loolu loo loolu leer na waaye euh, euh, euh, Feeling Dakar TV dafa demoon fële nga xamante ne rek mooy ca